Stunde und benn yéene ci nit benn benn benn benn yéene benn yéene bu nit ki di am daal bu tey dañuy nekk ci société yi di yàq dañuy nekk ci mbooloo mbooloo yi di yàq dañuy nekk ci mbedd bi di yàq dañuy nekk ci place di yàq yow da ngay da nga da dañuy bu ñu bu ñuy ñëw si yow dañuy mel ni ñu yéene waaye bu ñu demee yàqal la ba da nga naan sax ndax te loolu léegi dafa bari waaye dañuy yàq rek yàq rek yàq rek léegi nga gis rek mooy yow mën jël benn affaire dañuy leneen la lu bon rek enregistrement boobu jël ñu dem ci bëgg a yàqalee foofu yëpp ñu yoo xam ne pour nit ñi kenn bañ a dinaa yéene loolu ñooñu def fekkoon dañ naa fonk nga gis ne seen enregistrement yooyu ñuy def ak soxoraay bi ko yéene bi ñooñu waroon na am si yow wala ñu amoon si yow li bi day jàpp boo xoolee loolu bi bari na euh, te lépp ñàkk yéene nit bi rek yi si gis-gis man de kii dama kaa bëgg a defal lii daal dama bëgg dama tukki nga sa sa ñàkk yéene rek nga nekk noonu bul ko rek kii de dama ko bëgg a utal liggéey moom boo ko utee utalee liggéey tamit sa day de liggéey waaw si sa ñàkk yéene tamit mooy tax tey ku ko jublu nga fexe ba taxarle ko loolu yëpp sa ñàkk yéene moo tax yéene. Euh, ñàkk yéene dafa bon si doomu aadama yi léegi gis loo xam ne nii sax leer na ko tey lii nii moom ba am ko bu bàyyee nga am mu ciy jariñuwaat sax mais du boo xoolee ñu bari bari bari yenn saa yi bari gis nga lu bari bari yenn saa dañuy deme dem ba dañuy découragé ci àdduna ndax ñàkk a yéene yi leen doomu aadama yi di ñàkk yéene waaw yenn saa yi nga gis ko lii ngay ñàkk yéene ñàkk yéene ba yàq loo xam ne lii lu rëy lay doon ci ci ci ci ci ki nga yéene wu waaw wala nga yàqal tamit ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ci kooku nga yéene parce que nit boo ko yéenewul te gën laa mën li muy def danga ko war a boko ko wul tamit te mom la ñuy ñu doylo nangu kaa déggal te buñ ko ko joxee momit mu doxale ko ni ko wara do ni ni ko ñepp di bëgg nga yéene ko ko muy dox mais parfois du bari mu ngi yàq fi ko xoolee ba ci politiciens yi bay ba ci nguur gi ko xoolee parfois lek lek nga jox ko xamna ni tay boo ko joxee du arrange nit ñi te mu am ko la dégg ko xamna ne ko mu arrange nit ñi ba loo ko jox ni ñepp jot ci Euh, nit ñi ñàkk laa yéene ba xañ la kooku ba yow sa politique yàq wala ñu xañ la loolu ba yow lu baax loo doon def muy jotale fenn doot loolu yëpp ñàkk yéene moom moo tax nit ñi dañuy yéeneen euh, am yéene si nit bu ñu amee yéene nangu kaa jëfe ah yàlla mën na ko mais bi moom bari waxalante du du dëgg ndax bëggoo nit ki avancé yéene woo ko dara mooy tax nga koy nettali ba nga xam kan ne ni kenn du ko wóolu wala kenn du ko yéene jox dara te loolu yëpp sa ñàkk yéene tax gaa ñi dellu si waat ngeen seen xel ngeen ànd ak dal te xam kan ne lépp lu nit ki war a am daf koy am ah, waaw lu mu war a ñàkk it daf koy ñàkk ngeen xam ne tamit àdduna li ah, koy gën a baaxal dal mooy jàmmaam bu jàmm amee waxalante lu baax am yéenente lu baax am bëggante soppante wóolante am bu ko tey bi doon wax euh, lu bari lu bon kii dalay yéene ci yow kii am ci naa la ne kër yu bari sax lu ko tardé loolu gisee da ngay gis ne <clears throat> mag ñi dañuy bokk njaboote ñëpp mais li ñu jur rek la ñuy gën a yéen waaw ñeneen ñi moom seen yoon nekku si ñeneen ñi nag moom bu ñu wax suñu yoon nekku si mais dañ lay ñàkk yéene ba pare di yóbbu ci sëriñ si pour yow nga bañ a baax la waaw loolu dafay am loolu lu doy waar nga gis koo xam ne li dem ci société lay nekk ñàkk yéeneem rek dina dem moo dugal la ci sëriñ si liggéey la pour yow nga bañ fa am dara wala mu gis ne tey yow da ngay yaa ngi ànd ak patron bi wala patron bi jublu na wala ku ki ñi gën a soxla foofu jublu na la ñàkk yéene bopp mu fexe ba taxaw xam ne ne ñi daal dellu seet ak ñoo xam ne nit di am rek ñoo xam ne yàlla moom ko nekk doomu aadama ñoo war a nangu lu yàlla jagleel doomu aadama bi pour ñu mën a dund pour ñu mën a dund moo tax mu ngi ñaan yàlla defal jàmm di wax ne képp ñoo xam ne nii bëgg yang ada di di di la defal wërsëg mën nga jël big ak feuille nga bind ci comme lu mel ni big feuille nga def al nga bind alhamdulilah rabbi alamin alhamdulilah rabbi alamin alhamdulilah rabbi alamin loolu rek ngay bind nga bind ko bind ko ba mat 100 fois nga koy sangoo yàlla da lay dimbali ngay am loolu day dimbali boo amul liggéey tamit mën nga jël bismillah bismillah nga bind ko feuille ba mu jeex nga tourné waat feuille bindaat ko ba mu jeex te bañ a loolu tamit boo koy sangoo da gis ne da euh, euh, euh, ngay am wërsëg booy wérdu tamit mu ngay wérdu inna haza la risquna ma lahu min nafadin mille fois loolu day tax am wërsëg boo tëjoo nag ba tëju bu ëpp ba mu ëpp ba mu ëpp da ngay yàlla tiif yàlla tiif yàlla tiif yàlla bàyyi ba jour jour fekk yow sa tëju dafa ëpp nga def ko 3000 boo ko defee 3000 rek da gis ne ci guddi gi jeudi gi yàlla dafay tijji waaw yooyu rek la amoon ay recette yu ne dañ ko mën a demoon ci barkeelu comme euh, lépp rek si roy lu baax la euh, lu baax lu ñu xamaale tamit dañ waxaale pour nit ñi di si mën di jariñ kon yàlla yàlla defal lépp. defal ñëpp jàmm. yow mi jàkkaarloog télé bii di Kifna TV aboneel te daal di partager suñu vidéo daal di koy aimer Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkoon Kifna TV Sénégal.